Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'en vais vous faire lecture du communiqué numéro 103 de ce vendredi 13 juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultat des examens virologiques ci-après. Sur 1005 tests réalisés, 92 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,15%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 60 cas contacts suivis par nos services. 18 cas issus de la transmission communautaire, répartis entre Guédiawaye Rufisque 3 cas Mbao 1 cas Diamaguène 1 cas Liberté 6 1 cas Bambilor 1 cas Kounoune Yaraax 1 Malika 1 cas Diamniadio 1 cas Et enfin, Touba, 4 cas. 106 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et guéris. 23 cas graves sont pris en charge de réanimation. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À 4 851 cas ont été déclarés positifs, dont 3 100 guéris, 56 décédés et donc 1694 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au des mesures de prévention individuelle et collective ci wolof tey bésu àjjuma fukki fan ak ñett ci weeru juin 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi ma leen di waaj a limal ci junni ak juróomi test yi ñu def juróom ñoo ci positif maanaam juróom di ay cas contact fukk di ay cas yu jóge ci transmission communautaire ñu gis leen ci bërëb yi ñaar ci géejawaay ñett ci Rufisque benn ci Mbao benn ci Diamaguène benn ci Liberté benn ci Bambilor benn ci Kounoune benn ci Yaraax benn ci Malika benn ci Diamniadio benn ci Kébémer ak ñeent ci tuuba téeméer ak juróom benn malade yu ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñetti malade ñu ngi ci suñu service réanimation ñu koy wax service sauvetage ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci bésu tey dale ko ci cas bu njëkk Sénégal wàññi nañ fi ñeenti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak benn cas yoo xam ne kaayu yu positif la ñetti junni ak juróomi téeméer wër nañu ci juróom fukk ak juróom benn ñàkk ci seen bakken mu des junni ak juróom benn téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñeent ci suñu hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan yi ñu sàmmoon teg digle yi nga xam ne moom la ñu joxe maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam